bokk yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nañu yàlla boole jéggal di ndokkeel jullit yépp ci gan gu mag gi nga xam ne moom lañ doon séentu ñi seeni xol dund dund gëm yàlla doon ko nimsee gis lool doon ko yàkkawle ko yàlla indi na ko yàlla nanu fi yàlla bàyyi ba nu man koo jooxe ni mu ko santaane moom mi nga xam ne moo wax ci alxuraan ne moo gàllu ci sunu kaw ñun jullit yi bu weeru koor ñëwee nu woor ko weeru koor nag am jagleg boppam ci biir weer yi suñu boroom mi ngi wax ci alxuraan ne su ngeen bëggee xam am at yaata weer a ca nekk na ngeen xam ne ku leen ko laaj tontu la mooy fukki weer la ak yaar fukki weer ak yaar yooyee am na ca yent yoo xam ne yu yàlla baal xel la waaye tëxut nag mu tudd ca wenn weer nu mu tudd waaye weeru koor la ca ne sempet tudd ko ca jox ko ay jagle yu mu joxul wenn weer kon ku ko fekke war ngaa gaaw li gone yi di wax profiter mooy lu lay romb yi dem rek te nga bëgg a dem nga gaaw sànni sab saak wadd ne ñoŋ ca kaw kum raw kat day del si waat déwén waaye weneen moom weneen la dutu amaat wu jàll jàll na ya jàll lu ca waay defutoon jeex na du ñëwaat ay moroomam nag mën nañoo amaat waaye moroomam yooyu ku xam fu nga koy fekk kon ku ko fekke war nga gaaw aj ca la nga ca mën a aj te yéeg mu yóbbaale la yàlla na ko yàlla jàppandalal bokk na ci jagleem yooyu tudd gi mu ko tudd ne ci la wàcce alxuraan kon weeru jàng alxuraan la nu mu gën a baree ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mi nga xam ne moo nun ñoo niroo bind am malaaka daana wàcc mu ñuy wax jibri jibril mu mel ne dañuy nafar alxuraan am nañu ne guddi gu jot ñii ne guddi gu jot ak bëccëg bu jot dana ñëw dem la muy tekk rek mooy kon weeru koor weeru jàng alxuraan lu baree baree baree bari la te weeru koor it bu ëllëgee mook alxuraan moomu nit dana toll ci ay xat-xat ñu xettali ko loolu waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ëllëgee ña di jullit te nekk ci ay xat-xat xamaguñ lu ñuy def ku ca sonne woon weeru koor nam ko war a sonne te mooy woor ko mooy woor ko koor mën na koo séen xàmmee ko ci gaayam ñëw ne yàlla kii kat tin ma ci tin lu tax saa bu weeru koor masan ñëw maa ko daa tee lekk kee koo naan tee koo def mbooleem yi nga xam ne yu dagan ci moom la kon rikk yàlla tin ma ci tin nag ku xamut lu mu doon mooy kuñ ne dañoo téye kenn fa ña ko war a téye téye ko ñu yaakaar ko ci woo ko mu dem ànd ak moom ñëw loolu mooy tinu day tinu ji ñu tin ko ca jox ko ko mu ànd ak moom dem weeru koor nag yàlla daf koy may loolee bu ëllëgee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ne yàlla tin ma ci kii maa ko teewoon di lekk bëccëg ak a jëfandikoo mboolem yi dagan mu jëfandikoo ko ci lu dul weeru koor waaye alxuraan day ñëw ne yàlla yàlla nag ma tin ci kii maa ko teewoon a nelaw guddi guddi gu jot daf daan taxaw di ma jàng léeg-léeg mu jàng ba mu yàgg mu jóg julli ay rakka te kuy julli ay rakka dañ ca jàng alxuraan kon rikk yàlla yàlla nag ma ci tin yàlla tin ko ca kon weeru koor weeru alxuraan la waaye weer wu yàlla jox ay jagle yum joxut wenn weer la waaye ci weeru koor it ki nga xam ne woor na ko mën na caa am yoolub ay weeru koor yu bari ya ko rawoon ak yay ñëw ci kanam te na du ko fekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku woor ba ngoon jot nga jox ko ndogu te fekk yow mii koy jox ndogu li dangaa wooroon danga am ci jox googu nga ko jox ndogu yool bu toll ne moom kooram nga te du yàq dara ci yool bi nga war a am ci sa ak koor yow kon nag ña ngi koy jox lu ñu gën a bari ngay gën di bari le ay weeri koor waaye ci weeru koor it ci la yàlla barkeel lépp ba ci lekk ak naan daanañ lekk ci weeru baraxlu wi ak yi ko jiitu waaye nag amu ca wenn waxtu wuñ cay lekk wu yàlla tudd tudd ca barke lu dul weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jàngale ne dee leen xadd am na ñu ko ñàkkal solo lool nga xam ne tayal a yeew rek moo leen koy teg nee na dee leen xadd ndax xadd barke da caa am waxuñu lekk suur kese waaye ndekete yoo lu barkeel nag mooy loo xam ne fu mu fekk lu bari dana ko baril fu mu fekk lu né- fu mu fekk lu néew mu baril ko fu mu fekk lu bari mu saxal ko fa waaye du fa bàyyi ko mukk ci fekk waajaa ngi dund moom lu barkeel du fa bàyyi ko mukk fekk waajaa ngi dund tasaxaru fa inna fi barak fa inna as fi suxuuri baraka waaye taxawaay boobu ma wax léeg-léeg nga ne gàmm ne waat fojjat jug taxaw julli ay rakka ba sonn tëddaatit la ca suñu boroom wax ci weeru koor waxu ko ci wenn koor wenn weer ci njàng yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ne man qaama ramadaana imaanan wa ixtisaaban gufira lahu ma taqaddama min danbe koo xam ne fonk na bu guddi gu jot mu julli la man bu sonnee dallu yàlla dana ko te fekk yàlla rekk a tax yàlla rekk tax yàlla dana ko jéggal bakkaaram yam jotoon a def te xamu ko ak yam xam yépp moo ne ci weeru koor it umra ca yëmut ak wenn weer ci weer yi ñuy umra ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku umra ci weeru koor dafa mel ne àndoon nga ak moom ba muy aji makka umratun fi ramadana taadilu xajji ta taadilu xajjatan maani moo ne ci weeru koor yi lañ gis koo xam ne kum dëgmal nga du móoyu ndax gémmiñ gu xeeñ la koy waral mooy budul weeru koor it ku sàggan ci gémmiñam mën naa am léeg-léeg kum jub mu du moyu waaye yàlla nee na ci weeru koor moom loolu di xeeñ ci gémmiñu ku woor moom yàlla moo ko dàqal fuuf xetuk misk kon bokk bokk yi war nañoo xam ne koor ñëw na te bokkut ak weer yi nga xam ne moo ko jiitu woon du yamit ak weer yi nga xam ne mooy ñëw gannaawam ñu xam ne it koor moom bu ko yàlla dong moo ko moom yàlla kese ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale nee na jëf yi doomu aadama li ko tàmbalee benn yàlla daf ko koy fulal bu defee benn mu fay ko juróom tere ko juróom-ñeent muy fukk ba ba muy mat juróom-ñaari téeméer waaye nag koor moom yàlla nee na lam cay fay nit ki wutalu ko fu muy yem fa innahu lii nee na moo ko moom te junj nañ fi ca ginnaaw ne kenn ku ci nekk nam toll lay jëfe da nga gis ku def dara ci mbedd mi nga ne ko def lii ñu ne diw la du bett kenn moo xam muy jëf ju rëy rëy rëy rëy ci baax wala muy jëf ju sew ci ab safaan yàlla na nu ci yàlla musal koor it waroom xam-xam yi wax nañu ne mooy genn jaamu yàlla goo xam ne musisu koo defal kenn ku dut yàlla ñu jëkk nga daan jaamu lu mu mën a doon daanañ ko jaamoo nu nekk di rey ay gàtt di rey ay ay gudd ay gàtt ak gudd di joxe alal waaye nag woor ngir loola ma mus sa am yàlla rek lañ mas a wooral kon ku ci yàlla boole ngay woor te yàlla nga nga bokk ci ñu yàlla teg koor ñu nangu koo woor te man koo woor te nangu ko loolu cant gu rëy rëy rëy gu ab jaam war a sant digganteem ak boroomam la ndax nee na moom moom rek moo mën a fay koor wa ana ajisi be kon boog weeru koor nga noonu ñi ko doon nim see fekke di ko yàkkawleku agsi na nañ gaaw ndax loo xam ne bu yéeg gutoo la tàmbali toll fii mu toll fi mu ne nii ku yéex rek mu bàyyi ko fi yàlla na nu yàlla jàppandal lu wér ak ku man guñ ko mën a taxawee ci biir weeru koor nag daanañu wax ne diw anamu ñu ne daa dem buñ ne ko foo demoon mu ne da doon dàqi kooram dàqi koor mi ngi am ba léegi waaye am na it yoo xam ne day sàcc koor yoo xam ne fi mu toll nii tembe day sàcc koor nga xam ne li nit ko waroon a taxawee ci biir koor gi yàlla bindal ko ko ci ab yool loolee day roqi day rocc loolee benn benn ba ba muy jax takk mu defee ne lam dencoon ma nga fa te fekk dara nekku fa yàlla nu ci yàlla musal ba ci jiitu mooy télévision yi am na ñoo xam ne bu ñu xasee ba woor dutuñ tal dara lu may seetaan télévision musal salaat série yeeg feuilleton yi bu jeex mu toppal te ba ca des te ya cay wax lu jëm ci yàlla néew na kon fa yooyu noonu day fa télévision ak la muy àndal te bokkut ak lam war a àndal cib jullit mu war koo xool day sàcc koor waaye it jay ja mooy marché yi nit ki war naa nekk ba am yitte ju ko mat dem doxi ko wàññi ko waat dil si waat waaye am na ñooñ xumb xumb ba fa la ñuy dem di dàq koor gi waaye bu ñu koy dàq ci marché ba lañ ca amoon ku si néew sàcc ba da koy sàcc marché da koy sàcc yóbbaale ko ñu ñàkk da koy dàq defe ne mi ngi koy dàq fekk sàcc nañ ko ci yoxoom yóbbu ko yàlla noonu ci yàlla musal waaye bokk na ci sàcc yi sàcc koor it foog bañ a nelaw guddi gi lëm grand place bu tas mu dem ca beneen ba ba ñuy xëdd mu xëdd dem door a dem tëri nag di nelaw ba tëkkusaan jot mu jóg ana li nga xam ne moom la nit war a def diggante bu jullee suba ba noppi ba ba jant bi fenk ana li nit ki war a def ba la ñoo jul tusubaar ak li ñuy def tusubaar ci boppam ak gannaaw tusubaar ak jëkk takkusaan ak gannaaw takkusaan lépp raw na ko ma nga ne wàtt dina law ba buy jóg tuuti mooy des ci dog diggante ba muy laal ndox ak a kuuj kuujal ñu di ko lalal lañ koy lalal ñu ne dog jot na kooku xamul ci bëccëg bi dara kon foog guddi yi ci sàcc su mag si la bokk ci biir weeru koor te bokk yi néew na ñuy foog ñoo xam ne jullee leen tax a foog wala istigfaar ju dul jeex déedéet grand place rek fu tas ñu jàll feneen fu ñu dem ba ñooy tàmbalee bel bébbli rek ñu ne kon dama fay jaaroon rek jàll feneen nuyoo ñu fay leen ñu toogaat waaye bokk na ci sàcc su mag si sàcc nit ñi ci seen koor yi itam mooy téléphone yi dugg ci yi ñuy dugg nga xam ne da ngay wax lu yàgg te li ngay fay du bari ku jeex nga woo keneen am na ci ñu dañu mujj loo wax sax ñu ne waaw waaw waaw te fekk waaw sax jaaduwu fa waaye dañoo sonn loolu it ci sàcc yi sàcc koor la bokk rawati nag wax joo xam ne day jural nit ki bàkkaari kese jëw rambaaj nee nañ am na ñu wax ne gaa yi nee nañ ba téléphone bi yàgg lool rawati nag yëg ngeen li am biig ak li diw def biig loolu moom baxut ci wenn koor wenn weer waaye koor moo ci raw yàlla nañu ci yàlla musal waaye bokk yi am na sàcc boo xam ne day sàcc koor muy nay nay nag tekkiwut ne ku yor lu ne gàññi te du joxe rek moo ko doon waaye nay benn borom xam-xam nee na ku nay mi ngi xaru bu fi bàyyi ko ñami bàyyee alal ja da leen di fërloo moom ci boppam day xaru moom ba dee waaye ñami bàyyee alal ja moom dañuy lekk lekk ba fër ndax yaari loxo la ñuy lekk léeg-léeg sax ñu samp seeni tànk mos ba xam tànk lekk tànk neex na am de yàlla noonu yàlla mosul ci loolu kon koor dafa ànd ak saraxe ak joxe kenn ku nekk nam tollool léeg-léeg nit ñëw taxaw ne amut lu mu ndogoo ji wax na dëgg waaw wala déet loo man jox ko mu néew mu bari ndax mu néew bu ko ñu bare joxee lu néew léegi tey mu am solo waaye bokk na ci yi sàcc koor it tudd naa ko léegi ci foog guddi gi waaye am na ci bëccëg bi it jataay yoo xam ne yi amul benn njariñ jataay boo xam ne bu dee yenn dëkk yi ña ngay dam ye ñenn ña ña ngay yoote ñenn ña ngay mariage bu dee dëkk yi nga xam ne dañ ko fa tere ñoom dañ leen ko soppil defal leen ko li ñuy wax lido mu mel ne du dara te fekk waxtoo nga cee jàll woo xam ne bii kenn ku ci nekk fa mu toll ci am njàngam bu jëloon lam jàng ci alxuraan di ko wax ak a waxaat fas yéene weesu fa mu yamoon bu koor gi jàllee dana am jéego yu mu dox njàngam alxuraan moo xam muy góor wala muy jigéen moo xam ñuy fay xaalis wala bañ wala fayuñ xaalis am na ci ñoo xam ne ñii moom ca jàkka ja la ñuy def seen majalis yooyu waaye buñ génnee ci jàkka ci waxtu duñ jàng alxuraan duñ istigfaar duñ azkar dafay azkar waaye la ñuy def mooy. di seet numéro yi génn numéro yi génn léeg-léeg nga dégg ku ne numéro huit moo ko rey wala neuf wala dix te fekk moo rey bàppam kon koorangu noonu sàcc saangu noonu kenn ku ci nekk na ca xool boppam fam ca toll su ko defee moom fexe ba kenn bañ ko sàcc lam ca amagu si néew mu ne ko nànkutum téye ko ak ay yoxom yu dëgër mooy ca fexe ba bis bu set mu def ca bis ba jàllaale ko bis ba bis bu ne mu sëf ca ba mu dis gann mu yóbbaaleel ko ko ndax lii jot a jàll ak ku si néew lu ca jàll te luñ ci defutoon rek jeex na dootu amaat xanaa séentu ko déwén yàlla doon yàlla may nag ñu fekke ko yàlla nu yàlla may nu fekk jeexitu weer wi te ànd ko gu wér bañ mën koo defee ni ko suñu borom santaane dellu ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñun ñoo fi bokkoon nekk daaw te fekke wuñ ko ren yàlla na leen yàlla yaram ñi nga xam ne it ak wér dee leen tee mën a woor yàlla na leen yàlla mayug wér ba li des ci koor gi ñu mën koo dab yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin